jërëjëf El Hadj Mbaye euh, ñu duggaat tamit mën nañu wax ci banlieue bi bu fas yéene waxtaan euh, mën nañu wax ni tam euh, mënul ñàkk ñu waxtaan ci mbir mi nga xam ne xëy na milieu bi tam xam nañ ko tuuti ci soo bis bi yow itam saa su ne tam ngay doxalanteeg ñoom ay diggante yu ratax yu rafet gis dégg nañ fii ki nga xamante ni ñëpp naatamle wu ñu mën li muy def muy Thiat Seck rim kaddu yi nga xam ne jug na fii ci yenn plateau yi dem na fa da ngay dem ba nga xam ne sax xolam day tooy du mën a eggale plateau bi carrément ci oto bi ma mayoon nag yu demee li ne mel ndax bu ñuy wax toujours rek Euh, dañuy wax fan la euh, solution la ñuy bëgg a créer fii ci jàmm ji info euh, Thiat Seck ñëpp xam nañu tey bu ñu doon wax tey ci gaar-gaar ñëpp ak naatam la wuñ li muy def mën na ko ci côté bu ñu waxee ndongoloo ñu bëri xel day dem ci moom encore dañ koy fàttaliku mbiru oto bi diggante mag Wally sekk coow yi yow en tant que Alaaji Mbay yow nga xam ni mën nañu wax naa ni monument nga biir Pikine tey mbir mi ba nga ko déggee ak naka la la def te aussi yan conseil nga ci delloo ki nga xam ne moo di Thiat waaw loolu bi ma ko déggee Thiat Seck may ko oto nga wax ba pare mu ne. mu ne oto bi ci boppam euh, baaxul. waaw man ni ma ko déggee mere ci caat laa def waaw man dama cee mere caat torop torop torop parce que dafa yàqal géwél yu bari ci waali ah waaw dafa yàqal ñu bare bare bare bare parce que waali euh, di joxe teraanga amoo revenu dafa metti xam nga teraanga lu mu tuuti tuuti jërëjëf rek la ci nit war a teg comprendre nga mais bu fekkee. waali jox na ko oto mbaa mu jox ko felo mbala moto mbala toroto lu ko ci mën a jox est yi dégg moom bu wëlbati ko wax leneen rek man dama naan kooku du caat quoi parce que man caat bi ma xam borom baax la waaw caat bi ma xam dëggantaan lu mu yor sax mën na ko joxe moom comprendre nga. waa mais waali dafa bindoon waali dafa bindoon presque sept cent cinquante personnes yoo xam ne da leen war a may oto. maa ngi lay wax lu garaaw cent 750 personne fii Sénégal waale da waroon jox ku nekk un véhicule voiture yaa ngi dégg léegi mu dem ba egg 410 muy caat seek caat yàq ko léegi ñi ci des ñëpp seeni oto caat yàqal na leen parce que waale day def prise de conscience xam ni moom comme que day joxe teraanga te teraanga yi en revenu du ci am jërëjëf day commencé arrêté oto yi def ko ay ceeb di ko joxe waaw xam nga kuñ may ceeb moom vraiment toggi ko rek ngay def nag waaw moo gën. mais mais mais lan la ci côté communication en fait yow ba loolu amee yow mi nga xam ne ni ma lay wax ba ngaa bokk ci monument Pikine euh, euh, est-ce que yëkkati nga sa téléphone waxtaan ak Thiat Seck wa ilaa euh, jokku ngeen. taxaa nee naa la maa mere Thiat man daf maa yàqal sama oto xam nga wax ju egg tamit foog ñu lay wax man mii daf maa yàqal. mais yow tamit da ngaa waroon bokk ci ñi war a oto. man mii ma waroon ma ci décembre bi ñu nekk nii décembre bii la ma waroon jox oto. kon bu caat waxee waxu oto ba waali arrêté oto yi tooñu ma man caat tooñu ma tooñ na ma noonu la demee mais waali frère am la moom frère waali la ñu ngi koy ñaanal xam nga ñu nekk ci jàmm waali tamit xam nga nekk koo xamante ni ku baax la parce que cadeau pour Sénégal waali Seck parce que nit dina affaire nu mu demee noo xamante ne nii euh, bu ko yàlla wàccee ci nit ñi magu leen comprendre nga yàlla wàccee ko fii ci ñun. xam nga muy jëflante gaa ay teraanga parce que teraanga am ko yàlla moo koy joxe mais nga joxe ko ci yow la yow nit ki la comprendre nga waaw moom mooy premier pas bi mooy góor góor na ba am ay teraangaam te am na xolu di ko partager ak doomu aadama yi waaw doomu aadama yi nag comme que ñoom mënuñu ko defal teraanga en revenu nañuy wax lu nice parce que àdduna amul solo nañuy wax lu nice di ko def affaire leneen garawul quoi. Hmm. su ma la doon laaj tey wala ci kàddu bi nga xam ne fi ñuy tëjee sax jotaay bi euh, tey waa euh, caat laay wax euh, surtout malgré même li nga mer mer mer tey conseil bu fekkoon tey am nga tey looy wax ak moom dellu si waat ko tam yan kàddu nga koy dénk. caat li ma koy dénk mooy dafa mën a way torop xam nga way daa bëri ay fànn bëri ay ay ay pàcc man am naa sama benn nijaay boo xamante ne nii États-Unis la nekk Alioune Diaw ñaa day bind ay way yàgg na États-Unis trop mais xam nga loolu don la yàlla mooy maye ay nit yoo xamante dañuy am dégg-dégg dañuy am oreille quoi parce que musique dafa am ñaari façon nit yu koy déglu daa am ñuy déglu musique am ñuy déglu parole caat dafa am parole comprendre nga te il est trop trop musical si yaa dégg ndaanaan la comprendre nga bu ñu amoon kàddu yu ñu koy dénku en tant que frère man sama bi may ngénte maam jaara sama euh, sama jabar di ngénte sama doom ji ma tuddee sama yaay ma maana fi di ko ñaanal gudd fan ak wér ba mu jëriñ ma caat moo ko joué te daf ne ma alaaji laaju ma la dara dinaa indi lépp ñëw joué ko moo pekkaay mbay comprendre nga kon man ak moom séq nañ ay relation mais day toll foo xamante ne ci aar bu amee nu mu demee ñi ko xam ñoo war a taxaw expliquer la nii la demee pour nga xoolaat caat kenn daa ko waay ndaanaan la Alaaji Mbaye euh, kontaan nañ ci yow ci jàmm ji info euh, xam naa ni gars yi ñoo ngi lay xaraat nag xam naa surprise gars yi nañu topp rek plateforme jàmm ji info euh, balaa at mee jeex ci 2023 dañu la amaat ak yow benn jotaay boo xam ni gars yu bëri moom li ñu def mooy xaaraat sa jotaay looy tàggatoo ci tàggatoo bu dul tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy gërëm ñëpp ñaanal ñëpp di wax Sénégal nag jàmm ji info mooy tele bi nga xamante ni nii ku bëgg lu leer mbaa nga bëgg lu baax mbaa nga bëgg vidéo yoo xamante ne normal na exclusivité ñëwal jàmm ji info taxaa moo fi nekk dinal defal lu neex di gërëm samay mbokk bopp samay xarit ñoo xamante ni taxaa dañ ma bëgg rek te yàlla tax di ma jàppale ci lépp yaa ngi dégg di gërëm muxaa muxaa si borom États-Unis di ko gërëm bu baax di gërëm gauche bu baax a baax borom waaw waaw borom kër da baax mindi service yaa ngi dégg di gërëm Ousmane Thiam Ndogo mbokkum day waali Seck sama xarit la di gërëm nongoloo buur borom oor yi waaw di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal magam manjaay waaw di gërëm Mbacke Kase di gërëm Serigne Mor Thiam di gërëm Del alin Aline yaa ngi dégg di gërëm Philippe sama jour fële ci Turquie waaw Philippe sama jour la sama rakk la sama xarit la bërki démb dafa maa yónnee ensemble mayo ne ma alaaji ni ngay sporé moo ma neex léegi jëlal ensemble mayo bi yow nga ci entraîné maa ngi lay yónnee blouson yi balaa seddaay bi te ñëwal turki seet si ma ah. kooku dama bëgg Aliou Cissé woo ko équipe nationale moo dàq football ci àdduna bu lay paas du la xool il est trop fort no non non kooku alaaji alaaji Mbaye kooku foog foo foog nga taxaw ci kooku dafa war a ñëw équipe nationale. non kooku day ñëw. waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal waa pikin di ñaanal Sénégal yëpp di ñaanal sama papa di ñaanal sama yaay yàlla ko yàlla xaare ajana di ñaanal sama soxna maam Jaara Buso waaw di kontaan daal bëgg nañu jërëjëf mbokku téléspectateurs yi moom ngeen gis yaakaar naa dañu amaat ak moom yéen topp leen ci plateforme jàmm ji info yeneen waxtaan yu am solo ak Alaaji Mbay Dogo euh, leen sant bu baax ci disponibilité di ko ñaanal yàlla di ko baax nag euh, di ko disponible ndax bañ ko soxlaa euh, jàmm ji info vraiment mu des disponibilité mënoon ko dem fekk waaye tamit lépp mu lépp ñëw ci studio jàmm sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom projet gën koo taxawal xam naa ne yooyu dañ ci a waxtaan incha allah at bi balaa muy jeex ngeen topp ñu rek ci plateforme am yu am solo ñu war a seq